ñu ngi am mbégte dalal euh, Mballo Dia mooy secrétaire général bu SUTSAS jiite itam alliance And Gueusseum nekk secretaire général adjoint bu FGTSB ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci matinal bi di la souhaiter une très belle fête du travail yow ak ñi nga àndal ñëpp ci syndicat yi. waaw defe naa ne mbégte mi ci ñun la ëppee donc ñu leen di remercier di leen féliciter surtout ci liggéey bu bari bi ngeen def bu baax bi ngeen def mucc ayib ci parce que ay liggéeykat ngeen comme ñun di rafetlu profité di nuyuwaale ñëpp ñi nga xam ne ñuy saxoo di déglu euh, Rewmi FM. Mm-hmm. alors ñu tàmbali euh, ak euh, càkkutéefu syndicat yi tey fan ngeen ci toll lan mooy seen problème yi nga xam ne mu ngi ci taabal ji ba léegi saafaraaguñ ko mais aussi li nga xam ne yéen a ko doon sàkku te ñu jot ko saafara xeetum xayma ci ci ci seen ay revendication waaw xayma bi moom élevé mën nañu wax ni daal ñu ngi ci sant yàlla bu baax. Euh, ndaxte syndicat moom liggéeyam mooy revendication te revendication bu jeex rek beneen day ñëwaat encore. Mm. bu gën a bu gën a bees. Mm. wante buñ ko xaymaa daal gis nañu ni euh, si mbirum plan de carrière loolu dafa soxal boobu bu baax a baax baax a baax ñun euh, SUTSAS. Mm. ci plan de carrière bi gis ngeen ni. balaa docteur Marie Khemesse Ngom di jël lenge yi Abdoulaye Diouf Sarr moo fi nekkoon. Cheikh Abdoulaye Diouf Sarr. Ah, moom nag bu ñu revendiquer revendiquer signé nañoo moom benn accord mun nañu wax ni accord bu historique la parce que accord boobu euh, dem na ci li ñu naan plan de carrière parce que nu ki aussi buy liggéey buy jàng amee lijaasa dafa war a avancer si njàngam ñu gis ni nag li euh, noon tel ni toll technicien supérieur de santé yi nga xam ni ñoom ñoo jàng ba dem nekk ay technicien supérieur di jàngal ay infirmiers d'État ak ay sages-femmes ñu wëlbatiku ba ñooñu raw leen ba pare ëpp leen payoor xam nga loolu jaaduwul ba tax na nag biñ ko revendiquer léegi nag gouvernement bi daal ni man de mënuma euh, fay ay nit lu nga xam ni xel ni ay diplôme joxuñ joxuñu leen ko mais ministre de la fonction publique daal ni aussi il faut que ñu mottali njàng moom pour que moom mën leen a classé hmm. ministère des finances daal ni nag ku ñu classé wul duma ko a ah, léegi nag loolu ay la yowén d'accordoon nañ ci euh, ci loolu ba signé accord bi ba commencé njàng bi ba njàng bi daanaka jeex na léegi dañ leen war a jox ñenn ñi seen lijaasa ba pare dugal leen fonction publique li ci am solo nag euh, euh, Fatou Fatou Thiam mooy euh, que ku ci nekk buñ la classé da ngay jógee hiérarchie bi nga nekkoon mooy B2 nga ñëw hiérarchie a de nag da ngay nekk hiérarchie A déjà Sénégal fii ak demuloo hiérarchie A rek mënoo nekk directeur mënoo nekk ministre mënoo jiite dara. Mm. te mënuñu depuis l'époque coloniale ba boobu. benn infirmier d'état wala benn sage-femme wala benn assistant social mënu woon nekk directeur wu lenn ndaxte nekkul hiérarchie A ñoom ñëpp hiérarchie B lañ nekk xam nga loolu loolu lu avancé bu rëy la ñi ci am nag lijaasa euh, euh, boobu nam euh, dañu administrateur de soins pour ñuy faj wala administrateur de service pour ñi nga xam ne ñu ngi jàngale wala ñu ngi gérer ay service hmm. te loolu aussi bu ñu amee maanaam cawarte mën nañu ba am dem ba dem ñu naan PhD maanaam doctorat te léegi sax kames sax nee nañ ñu ni sax mën nañu dem ba agrégation donc ko nga xam ne mosoo woon yaakaar loolu ba léegi nga yaakaar ni mën nga nekk docteur te demoo faculté de médecine yaakaar ni mën nga am agrégation te aroo ci filière yooyu loolu dafa nekk lu rëy rëy rëy loolu aussi ñu ngi koy rafetlu ci plan de carrière bi li ci des nag aussi du ñoom rek parce que ñi naan assistant infirmier yi nekk nañu euh, euh, lim bu takku te boo demee ci biir ci àll bi presque ñoom ñoo fa nekk ay chef de poste ak mm. ñoom seen njàng aussi dañoo considéré que dafa cëkk mm. te ñoom ñu ngi nekk hiérarchie C te war nañu nekk hiérarchie b mm. ñoom nag aussi ministère de la santé nangu na ñu benn at si pour que ñu mën nekk bi hiérarchie dekk ñoom tamit mën a dem ba nekk hiérarchie ah, ah euh, kii euh, euh, kii nu mu seeti B1. Hmm. bu jógee fa daal dem hiérarchie A ak yu mel noonu loolu moom am solo loolu tamit moo valable ci aides sociaux yi ñuy war reverser ak problème mu ñi nga xam ni nekk nañu ay assist ay ay ay infirmiers brevetés aussi ñu ngi lijjanti seen mbir hmm. mais fàttewuñu aussi école de formation yi parce que école bi nekk Diourbel di former technicien maintenance yi mhm. hospitalière parce que maintenance gis nga équipement yu am solo yi gouvernement bi yëpp yéen président de la République mhm. il faut que mu am ñu leen di maintenir sinon équipement bu nekkul o nord mhm. mën na la jox tension bu baaxul jox la ko comme xabaar wala mu jox la résultat yoo xam ni baaxuñu te boobu waaw si day day lor malade bi wala doo mën a contrôler paj mi du jaar yoon loolu nag aussi école boobu nam nañu mu nekk école ingénieur ah bon ensuite euh, école END ENDSS bi ak mm. ENDSS ñu basculer comme ni ma waxee LMD. E mm. loolu daal nekk noonu loo xam ne ñu ngi koy lu bu baax a bax sur le plan des carrières. mais yemul foofu rek mais ci koppar yi tamit. Mm-hmm. revendiqué woon nañu pour ñu yokk payoor yi ah. ku ci lu mu néew daal ku ci nekk am na def na ñaar fukki junni bu teg ah, ñaar fukki junni bu teg ñenn ñi sax am nañu fanweeri junni ak yu mel noonu donc loolu loolu musul am parce que augmentation yi daan am yëpp ay juróom benn téeméer lay doon wala junni lay doon wala yu mel noonu mm. mais lii moom mosul am mm. depuis époque coloniale loolu aussi ni ñi dañ parce que euh, je ne pas d' accord c' est pas normal rek mënuñu ci wéy mm. euh, am na loo xam ne bu fekkee tegu na da koy teg waaye nag yokk boobu dafa maasewul Hmm. parce que ñu nekk ci collectivité territoriale yi parce que ñu ngi ci ànd gësëm ñooñu le 31 mai 2022 euh, ba léegi fayeeku guñu tout comme aussi ci suñu biir am na ay chauffeur am na ay garçon ay filles de salle ma xalaat ni ñu am ay diplôme nekk ci suñu kër yi yoo xam ne fayeeku guñu moo tax ñu def ba dem onze plan d' action hmm. ba nag lañu ñu premier ministre woo hmm. euh, ñoom ñuy waxtaan seen biir ministre des finances ministre santé collectivité yooyu yëpp pour que ñi am woon ñu wut ay pexe pour mu ñu amee parce que mm. tant que kenn ci ñoom amul rek du ngor ci ñun pour ñu bàyyi xeex boobule. dëgg la wante xeex tamit ay pexe la du grève bis fu nekk wala yooyu yenn saa yi da ngay soppi doxalin. waxtaan notamment waaw loolu moom ñu ngi koy rafetlu rafetlu nañu aussi agent santé communautaire yi. Mm. loolu aussi Marie Khemesse Ngom signé woon na euh, arrêté bi nga xam ni moom moo yokk li nga xam ni pourcentage bi ñu war a am ci recettes yi. Mm. yi yi comité de de développement sanitaire yi. di leen di leen jox maanaam wàññi woon nañ ko ba ku daan am juróom benn junni ñetti junni lay am léegi fekk nañ fexe nañ ba de répartition bi weesu foofu yëpp dem ba cinquante cinq pour cent loolu mm. tamit dañ koy rafetlu mm. ante am na yeneen nag yu des mm. ah, par exemple statut du personnel hôpitaux yi loolu ba léegi signé président de la na décret fee xeex nañ ko nag fukki at ak ñett 2003 ba 2016 mais ba léegi bu ba appliqué ko te xamuñu lu ta te buñ ko appliqué wul benn bi mooy duñu def duñu def la règle des trois huit maanaam euh, hôpital dafa mel ni hôtel euh, ñii dañu war a xëy ba midi wala quatorze heures ñu wàcc ñeneen ñi daal di gont ba vingt heures ñu wàcc ñeneen ñi daal di fanaan ba bët set de ce fait ñu am disponibilité de soins de qualité mm-hmm. euh, bis bu nekk comme hôtel xam nga hôtel la boo xam ne ay médecins ñoo fa nekk ah donc loolu nag noonu la war a noonu la war a noonu la war a demee. mais loolu dafa soxla ñu doy am fa est ce que loolu am na ci hôpitaux yi. am na ay recrutement yu bëri yu ñu fi doon dégg mais est ce que tax na li ngay wax nii mu mën a nekk. Ah, loolu nag li li di wax mooy loolu jaray lijjanti hmm. parce que fu mu nekk nii bu ñu déggee ñu naan hôpital yi dañu am pléthore personnel loolu méngoowul ak dëgg parce que bu fekkoon defoon nañu règle des trois huit di nga gis ay brancardier bu ñu ko amee ci suba ak ci ngoon doxee nag ci guddi ko ci am. Hmm. ba tax na ñooñu sax lim bi lu ñu wax wax dañoo bari bari lim bi na ci ci hôpitaux yi hmm. te aussi li ñu li ñu li ñu néew néew noonu. moo tax comme que état bi recruter wul te pourtant ci yeneen yeneen parce que ministère de la fonction publique mooy recruter personnel di ko jox ministère de la santé jox ko éducation nationale jox ko police gendarmerie ak ñëpp wante lim bi ñuy jox ñeneen ñooñu mu ëpp fuuf ñuy jox ministère la santé. Hmm. ba tax na nag ñun dañoo soxla lim bi d'abord dafa dafa dafa néew pour fonctionner mais ba noppi nag ñeneen ñi dañuy dañuy génn àddina. Hmm. duñ leen remplacer ñeneen ñi aussi dañuy génn ci seen coobare bopp ñeneen ñi dañu à la retraite. donc ak mu nekk war nañu wut lim bu takku. Hmm. ñàkk am lim bu takku boobu nag moo tax ñuy def ay contrat contrat nag durée déterminée wala waaye contrat de prestation loo xam ne sax ko du travail dàq na ko pour nit di ko di ko di ko am contrat de prestation yooyu la moo tax bis bu nekk jàppal bàyyil ba tax na ñoom it comme que nguur gi ci bopp li mu leen subvention te personnel bi war a liggéey barewul ñoom it ñu def contrat yooyu ba tax na nag masse salariale bi maanaam li ñu war a fay. Hmm. normalement ci téeméer bu nekk ci bépp entreprise bu bu normal même seen rajo boobule. Hmm. bu dee entreprise bi normal na masse bi warul weesu téeméer bu nekk warul weesu juróom-ñaar fukk ak juróom maanaam trente cinq pour cent. Hmm. wante fu na hôpital bu bu nekk foofu. amul ñoom ñëpp dem nañu soixante pour cent ñeneen ñi sax egg nañ ba soixante dix pour cent. maanaam lu a ji ah moo tax gouvernement bi a yokk subvention bi mooy suñu revendication mhm. wax nañu aussi bu fekkee gouvernement bi comme que fonction publique la ñu yaakaar te fonction publique joxe nombre bi mhm. dañu ne ministère de la santé yow may nañ la fi ak at nga recruter at mu li tax li war a méngoog mhm. bi nga soxla mais loolu àggaguñu foofu ci loolu ak euh, yeneen ak yeneen carte d'égalité des chances waxuma ko woon sax xeex nañu ba ñu voté bi parce que ñun syndicat santé l'action sociale il a fallu que président Macky Sall ñëw en 2012 ñu indi ñu signé carte d'égalité des chances décret bi mille 2014 ba léegi mais ba léegi ci lu met ñetti millions handicapés li ñu war lu ñu mën a xayma ci pop ci population bi ñu nekk bu dee considéré nañu ay quinze pour cent de la population mais i am carte d'égalité des chance ay soixante mille ay mille maximum ci ci trois millions et quelques de handicapés yoo war xam ne dañoo war am carte d'égalité des chance boobu Euh, pour que ñu ñu jàppale leen ci école bi du ñu fay dara école publique du ñu fay dara ci ci ci ci transport public mais bu dee privé demi tarif la même ci avion bato mais loolu amul éducation nationale léegi cas d'égalité des chances ministère de la santé rek moo ci jubul moo leen di jéem a faj tuwa leen ci mutuelle yi mais ba léegi aussi li faj mi li mu war am demul noonu hmm. donc idée bi rafet na mais demul. gratuitement l'universel aussi teg ko fi am na solo lool. Mm. mais agence bi ci boppam du fay nit ci moment mu leen war a fay. Euh, ba tax na aussi souvent ay bor moo ci teg koo xam ne mm. dafa la war fey ci weer wi wala ci si ci quarante cinq jours bu demee ba at wala juróom-benn weer fayu la ba pare wëlbati ko naan la tey suba la bor. Mm. xam nga loolu aussi du yombal mbir yi. waay te malaat continuer di ñëw loolu yokk dette hospitalière bi ni ngeen koy waxee tout commercial bi nga xam ne aussi euh, signé woon nañ ko ak état centrale yi ndax yéen syndicat yi yéen a ngi ciy gis seen bopp ak itam est-ce que pacte boobu ba léegi mi ngi fi ndax malgré pacte bi ñoo ngi dégg ay grève loolu xaw a doy waar waaw ñun gis ñu suñu bopp parce que boo déggee centrale syndicale parce que ñu bare bu ñu déggee centrale syndicale dañu foog ni benn syndicat la centrale syndicale ay kuréel ay kuréelu syndicat la ñu mais kuréel yooyu nag ñoo demoon jongante mm-hmm. bi ñuy jongante nag kuréel yi nga xam ne ñoo ci ëpp syndicat ñoo ci ëpp mbooloo mm-hmm. ñoom ñoo nekk coalition des centrales syndicales ñoom ñoo signé pacte bi ak gouvernement bi daal ni donc pacte bi stabilité sociale maanaam jàmm mooy am ndax ñu suqali économie réew mi wante ñoom bi ñuy signé seen pacte boobule mais dañoo dafa mel dañoo fàtte ni ñoom ci seen wàllu bopp ay kuréelu syndicat la te syndicat bu ci nekk am na plateforme ak nguur gi wala accord yoo xam ne nguur gi signé wu ko bu doon dañoo ni nguur gi balaa ñoo signé pacte bi ñi nga xam ni xel ni am nañ ko ak SUTSAS na féete boor li ñu amanteeg ay waa UDEN nag ñeneen ak ñeneen na féete boor bu kon coow li du bari mais bu ñu demee ñoom signé seen pacte maanaam dafa mel ni ñoom dañoo signé pacte pour que du am grève générale parce que ñoom fi leen di xaar mooy ci pouvoir d'achat si affaire fiscalité foofu leen di di xaar ay ay convention ak yu noonu mais bu dee ñoom signé nañu loolu ba tax na ñoom duñ def grève générale ci réew mi mais mais loolu signé nañ ko mais taxul stabilité am parce que sectoriel yi ci seen wàllu bopp gis nañ ñu ngi ci mbedd mi ñun gis nga déjà ñu ngi ci onze plan d'action te ñoom central kenn jàppale si daaw jéeg pour ne pas dire en deux mille dix huit gis nga defoon nañu ñaata euh, demoon ñu ba ba ba dem ba seize plans d' action bi ñu bëggee def dix sept plans daction action président de bo République bu wool boppam bu pare daal ñu bàyyi leen lii ma ma ma lijjanti lii bu après élection yi ma def nangam mais bu doon ci central syndicat bi doon nañ jàppale syndicat de base yi ci loolu sax ñu mën a wax mais signé pacte ba pare nekk ci kaw. Euh, bon stabilité amul ba pare syndicat yi nekk ci suuf di xeex ku ci xeex ba sono daal di di dee wala wala wala amay problème loolu loolu yenul maanaam loolu moo tax nag mu am ay plateforme comme ay ànd gësëm ak ay plateforme du secteur primaire ak yu mel noonu loolu rek moo ko andi parce que centrale yi bu ñu taxawoon taxaw bu ñu bu ñu taxaw parce que syndicat central bu nekk am nga syndicat boo boot syndicat yi ñu boot yëpp bu ñu dajaloon ñoom centrale yi kon xeexu ànd gësëm du sori wala xeexu substance du sori donc loolu ñun gis ñu suñu bopp te war nañ ko xayma waat seetaat ko bu baax a baax. Hmm. ça veut que kon bu bu central yi di wax ak état ci lu mel ni pacte yooyu xëy na duñu wàcc ba ci base bi léegi yéen ban taxawaay ngeen dara am euh, ci situation boobu. en tout man de central bu bu ñu bokk mi mooy FGTSB Sidya Dia jiite ko. Hmm. ñun fu mu nekk nii ci semaine yi di ñëw euh, wala ci weer lu mu gàtt gàtt ci weer yi di ñëw. dinañu dajaloowaat pour que syndicat yi nga xam ni mën nañ ànd ak ñun ñëpp ñu daal di def centrale bu xam ne ni dana gën a mën a taxawal liggéeykat yi ci li ñu soxla parce que ñun pour ñun syndicat bëri moo tax a jóg donc centrale syndicale aussi bu dajalee ay syndicat bëri moo ko tax a jóg bon syndicat centrale nag bu bëriwul ñun mënuñu nekk ci central bu lu bëri. Hmm. ñun loolu ci loolu lañ nekk loolu lañ ko gisee daal. ñun daal amul xanaa loolu moo leen jëlee fa ngeen nekk. Ah. waaw loolu mu bokk na si li ñu fa jëlee parce que d' abord jàppale si li ñu nekk. te du ñu suxlu du ñu jàppale du ñu bind pour jàppale ñu. Hmm. loolu tax na lu nga xam ni loolu daal tax na bokk na ci daal li tax ñu jóge foofu. bokk loolu moom ndax jóge UNSAS ñëw bokk na ci waaw bokk na ci daal parce que Sidya Dia taxawaay bi mu taxaw daal gis hmm. ñu ñeneen ñi taxaw ko. loolu moom dëgg dëgg wër jërëjëf kon ñu ngi lay gërëm bu baax Mballo Dia Thiam secrétaire général SUTSAS président alliance And Gueusseum secrétaire général adjoint itam bu FGTSB amoon nañu mbégte dalal la ci euh, bésu premier mai bi ci matinalu mi FM euh, di euh, ñaanal aussi feetum jàmm liggéeykatu Sénégal yëpp particulièrement yéen syndicaliste yi ñu doon dalal tey jërëjëf amin jaajëf yéen amin jaajëf yéen amin